Cheikh Oumar ñu ngi lay nuyu. maa leen si juróomi simili retard yi tey xibaar yee xaw a sakkan ñu am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM euh, door waxtaan wi nag ak génnuk àdduna maître Alioune Badara Cissé nekkoon médiateur euh, de la République waaye euh, li gën a fës ci mbir mi mooy seede yi nga xam ni daanaka yépp benn la woy politique yi ku jee comme opposition waaye itam société civile ak sax ay simple citoyen ci sa xalaat lan la ci way politique yi war a jàngat. Euh, di jërëjëf Fatou di ne rek di jaale waa Sénégal yëpp euh, ñi nga xam ne tey pertu Alioune Badara Cissé mu nekkoon kàngam euh, ci Sénégal kangam ci wàllu politique mais kàngam aussi ci wàllu xam-xam ku amoon taxawaay nekk membre fondateur wu nga xam ne mooy APR di jaale famiyam di jaale président de la République xam ne moom la doon àndal def politique depuis loolu nekkoon fi tamit ministre des affaires étrangères nekk fi médiateur mais lii nga xam ne tey la ñu gën a gis ci ba mu wàññee yàlla jëlee ko fii euh, moo di euh, Sénégal yëpp moo raf ñoo lu taxawaayam taxawaayam en tant que médiateur mais relation yi mu amoon avec opposition bi comme ñii waa nekk ñi nekk au pouvoir waa société civile bi ñëpp unanimement dañu gisoon kenn koo xam ne euh, jaayul ay valeur am gëm-gëmam ak conviction yu mu am ba muy dugg ci politique ci la taxaw même ba muy traversé ay moments yu métti ak partem ah la mu waroon wax ci dëgg ci parti mi ak continué na ko wax hmm. bañ ko xeexee tamit taxaw na fi mu taxaw ah, delluwul ginnaaw ah, mu wane ne ne moom valeur yu mu gëm démocratie bi nga xam ne da ko yàgg a défendre ak li nga xam ne moo ko taxoon dugg ci politique bi ah, dem na ci ba jeex mais aussi vraiment nekk la koo xam ne dafa ñëpp ràññe woon nañu ko ci xam-xamam. Mm-hmm. mais ci aussi ci éloquence am mooy buy wax dafay wax ak tegin wax ak mm-hmm. yar wax ju rafet boo xam ne lépp luy génn ci gémmiñam. Mm-hmm. nit ñi dinañ ci bàyyi xel. loolu tamit muy nit koo xam ne tey euh, macha allah euh, ñaan nañu yàlla yàlla tàbbiku ci àjjana yi gën a kaw wi mu nekk war a nekk exemple pour ñu ñëpp. Euh, ñu ngi ñaan yàlla fi nga xam ne tey muy suufu Tuubaa mu fi mu tëdd. yàlla na nekk yàlla na yàlla oyof euh, suuf ci kawam. amiin jërëjëf Cheikh Oumar Sy euh, ñu daal di avancer kon wax ci wàllum inondation euh, ak coowal détournement yi nga xam ne ñu ngi ko ciy dégg tey lan moo ci responsabilité surtout assemblée nationale nekkoon nga député assemblée boobu jotoon a yónni ab mission d'information ñeel programme décennal de lutte contre les inondations mais boobu léegi gisuñu benn acte fort boo xam ne teg nañu ko ngir gindi askan wi ci tuumay détournement yi nga xam ne depuis boobu ñu ngi koy dégg ci koppar yi ñu jagleeloon xeex waaw xam nga euh, responsabilité assemblée nationale dafa engagé ci li nga xam ne président de la république ci boppam defoon na ko ci référendum bi. Hmm. mooy suivi des politiques publiques. politique publique mooy li nga xam ne tey par exemple inondation yi dugal nañ seen xaalis ñoom demoon nañu saytu waraat nañu dellu seet ak population yi lan moo avancé lan moo avancé wul parce que mbirum inondation yi fu mu ne nii dafa jéggi dayoo. Hmm. taw bi ni mu ñëw te taxul la taxu koo taw taw bu fort boobu yëpp bi ñu ñi yaakaar. gis nañu déjà zone Kër Massar bi naka la fa euh, ndox bi indil ay gàllankoor yu bari milliards yu dul jeex lañ ci lañ ci dugal ci fukki at yi président bi nee naan na dafa amoon programme mu sept cent cinquante milliards te plus de quatre cent et quelques milliards ba pare dugal nañ ko ci. Mhm. bu ñu déggee na kon benn ministre taxaw nee ne li xew Kër Massar parce que benn tuyau moo dépoilé la. dañuy xalaat ne est-ce que suñu ministres yi vraiment ñu ngi suivre ak avec sérieux hmm. liggéey bi am ci terrain bi dégg nañu détournement yu mag yi ak société bi ñu dugg ay saaye dégg nañ ko fi ak yeneen société hmm. yoo xam ne jox nañ leen ay xaalis ñu waroon fa indi ay moto pomp de hmm. vingt sept motopompe ñu indi luul ñaari moto pomp yooyu tamit mu nekk ay gàllankoor mais surtout aussi dañu war a xool parce que li ñuy tubaab bi di wax zone ni non aedificandi la mooy zone yoo xam ne waruñu fa woon dëkk mhm. euh, donc mooy zone yi nga xam ne dañoo bëri ndox ba pare nab bi dafa dafa dafa li muy jël ci ndox euh, dafa bëri loolu tamit administration bi ak ñi nga xam ne ñooy joxe permis pour ñi ñi dëkk fa ñooñu dañu war a xool naka lañ leen di sanctionner mhm. parce que euh, aujourd'hui ña fa dëkk bu leen joxul woon permis bu ñu leen autorisé woon ñu ñu construire donc jafe-jafe yi duñ fa am parce que fi nga war a investir cent francs pour defar ay tuyaux yu baax ci assainissement foofu ci zone yooyu di nga fa def presque trois cent à quatre cent mhm. parce que ni fa ni mu ni mu mel la donc sanction bi assemblée nationale li mu war a def mooy woowaat ministres yi nga xam ne ñoo concerné ci affaire inondation bi déglu leen xool exactement lan moo xew ci biir mbir mi. Mhm. mais entreprise boobu ngay wax sax yi dégg nañu ko ginnaaw bi ñu ko tuumaale moom itam mu génn weddi wax ne sax koppar yi nu ne moom lañ ko jox jotu ko dem na sax ba def euh, xaalisu boppam ngir mën a permettre ADM notamment mu mun a recevoir yenn infrastructure yi jëm ci xeex mbënn mi. loolu tamit di loo xam ni lëndëm na ba léegi leeragul euh, mu wane ni am na fu mbir yi sooxee tey loolu kan moo ko war a leeral euh, ak justement kon kan la responsabilité am nekk foofu. waaw mais le responsabilité premier ki ko nga xam ne moom mooy définir politique publique yi mooy président de la république bu ko définir dafa am ñoo xam ne ay kàngam yu muy woo pour ñu ñëw jàppale ko ci ay ministre mu jox leen ay ay ay mission pour mise en œuvre li ñuy wax mise en œuvre euh, ci li muy décider ci politique publique ci wàllu loolu ñooñu bu nekkee dañoo fayir seen mission ñu ko def déjà première sanction banque boobu mm. deuxièmement am nañu li nga xam ne tey mooy cour des nañu IGE am nañu OFNAC e, am nañu ñi nga xam ne war nañu saytu exactement fan la lan yenn gàllankoor ci wàllum financement bi ak fan la xaalis bi mën a jaar. Mhm. ba ñuy wax ay waxum détournement d'objectif wala li nga xam ne tey xaalis bi euh, dañ ko nasaxal. Mhm. yooyu yëpp responsabilité en premier mooy chef de l'État bi nga xam ne moom moo yore moom moo yore décision publique bi moom moo yore décision bi nga xam ne ni ñuy définir politique bi. moom mu jox ko ay responsable bu xalaatee ne responsabilité yi ñu eggali liggéey bi ah mu ne leen yéen fi nii seen mission jeex na danaa ko confier ne ñoo xam ne ñoo gën ñoo gën a xarañ ci li ñuy def parce que mënuñu dëkk at bu ne c'est-à-dire taw du lenn loo xam ne dafa raar chaque année xam nga ni période bi taw di am lii lay indi comme gàllankoor taxaw nañ fi déclarer partout que inondation moom jeex na inondation mënoo déclarer ne ne dafa jeex amul gis nañu li fi xew ci àdduna bi yëpp ci wàllum ci wàllum inondation <clears throat> gis nañu tamit li xew fii New Orleans ak ak li nga xam ne yaa 16 ans amoon na fi organ mu ngi dellu siwaat donc mm. déclarer ko nii rek pour def ay politique de ay ay wax wax ko pour wax ko nii rek pour jéem a rafetal alors que problème bi dans le fond n'est pas réglé jaru ko lan lañ laaj mooy nañu fexe ba liggéey liggéey bi mu jaar yoon. Mhm. ñu mën fexe ba population bi ba a dugg ci gàllankoor yi nga xam ne tey taw bi mu ngi koy indi. Mhm. ñu wax ci njëgu dund gi cher lool jamono yi lu bari yokku euh, yemoo itam ak euh, crise économique ci àdduna bi ñu bari jàpp ne euh, Covid 19 moo ko waral ak li ci toftalu loola nga yaakaar wala danga jàpp ne ni nguur gi dundee moo tax tey yëf yi metti ci sénégalais yi. dafa am ay facteurs yu bëri naam déjà dafa am benn crise mondiale boo xam ne tey fu mu ne nii dafa indi ay jafe-jafe yu bëri mais dafa tombé pandémie bi dafa dafa dafa dafa déréglé bu ñu mënee wax loolu wala dafa dafa gàllankoor yeneen ay décision état yi mu jëloon ci wàllum ay investissement ak ci wàllum ay politique publique tey tamit bokk na ci train de vie de l' boo xam ne euh, moom tamit am na impact lool ci dundum sénégalais yi loolu li koy indi mooy lan premier mandat au président de la république investir na ci ay projet yu rëy bu ñu fàttee bu ñu fàtte tey am nañu BRT yu nekk fii am nañu euh, TER bi mu ngi fii jënd nañu ay avion Air Sénégal jënd nañu moom récemment jënd na avion euh, gis nañu ay DAC ay pro DAC ay projet yu rëy rëy am na yoo xam ne tey am na ay effet parce que tamit nit nit booy wax dangay wax dëgg am na yoo xam ne tey am na lu mu jural sénégalais yi mm-hmm. am na yoo xam ne tey au contraire amuñu guñu retombée économique nga gis nga jël cité Diamniadio du luy indi xaalis léegi léegi stade cent cinquante milliards du luy indi xaalis léegi léegi BRT avec TER bi yooyu du ñu indi xaalis léegi léegi train de vie bi avec plus de quarante ministres li ñuy consommer ci carburant li ñuy consommer ci ci ci ay électricité ak boo ko cumulé euh, ñu am plus de cent vingt euh, cent vingt mille fonctionnaires loolu dafa diis bu ñu xoolee tamit ne tey état bi dafa am problème pour dajale xaalisu taxes yeeg recettes yi nga xam ne tey moo koy tax a fonctionner dem nañu ba waa de finances rectificative bi wàññi nañ ci presque plus de cinq cent et quelques milliards xoolaat aussi li nga xam ne dañ ko doon am muy jóge bitim réew du dugg si wàññeeku na ñu mën a ne ah léegi nag jafe-jafe yaa ngi commencé tar parce que gis nañ ko ci wàllum lekk beeg dundin bi diwlin bi yokku na ceeb bi yokku na matériaux yi yokku na donc loolu lañ mooy li tubaab di wax inflation te inflation boobu il faut que président de la république am ci benn réponse économique defoon nañ fi plan de relance plan de prêt bi plan de relance économique mhm. euh, et sanitaire ba tey boobu amul effet mobiliser nañu plus de mille milliards ci li nga xam ne tey moom moo doon pandémie bi am na lu ci am lu ci lu ci lu ci dox am na loo xam ne euh, atteindre objectif bi ni ñu ko bëggee gis nañu secteur de santé bi nu muy mu amee ay gàllankoor donc yooyu yëpp bu ñu ko xoolee tey mu ngi indi mu ngi indil dëkk bi jafe-jafe mais surtout mu ngi nar a tombé aussi ak ouverture des classes yi nar a ñëw. Mm-hmm. yeneen situation yu nar a egsi yoo xam ne tey day gën fexe ba économie bi tar ci Sénégalais te loolu mm-hmm. président de la République war jël ay mesures yu gën gaaw wàññi train de état bi. xoolaat fu muy fu muy muy institution yoo xam ne ñu ko. Mhm. xool fan lay teg tànkam pour que sénégalais yi li nga xam ne tey mu ngi diis ci ñoom ñu mun leen ko oyofal. ba ñu traversé crise bi. OSIDEA bi nga jiite mbirum développement dañ ci yëngu bu baax a baax ëllëgu Sénégal ci wàllu koom-koom situation bi nga fi junj yëpp euh, euh, noo koy gisee boo koy seenu waaw xam nga OCDEA ah, tamit day saytu lu bëri ci li nga xam ne tey euh, doxalinu réew mi la mais doxalinu économie bi tamit ci la bokk te li ñu gis muy ñëw euh, xalaatoon nañ ko depuis parce que dépense yi gën a mag dañ ko def ci première premier mandat président de la république mais loolu li ñuy wax bu eggee li tubaab bi di maturation mooy bu demee ba jot da ngay fay da fay les da ngay fay ñi ko ñi nga àbbaloon xaalis dañ lay ne léegi fay suñu xaalis bor yooyu yëpp da nga koy fay loolu tamit bu jotee ci période boo xam ne yow xalaatoo woon ne pandémie dina am xalaata woone ne jafe-jafe au niveau mondial dina am dem nañu bay ñaan ñu ñu ñu dàq ñu ñu ñu ñu dindi detu Afrique bi président de la République moo ko porté mooy xamoon nañu ne lii di latar boo xoolee ne situation pandémie bi ba muy amee troisième vague bi état du Sénégal deful benn action sociale wala génn génnewul benn fonds d'appui dañu am yëpp ci santé bi rek lañ ko yemale donc mooy wone ne tey ressource état bi c'est rare entreprise yi nga xam ne tey c'est des entreprises sénégalaises tamit ñu ngi dund ay situation yu metti Euh, ñu bëri ñu ngi tëj wala ñu ngi wàññi seen i personnel donc loolu mooy jàngat bu ñu am ci économie Sénégal ne mu ngi traversé. kon bu ñu déggee dafay gën a tar. waaw mais buñ buñ buñ ci jëlul ay mesures dina hmm. gën a tar fa hmm. dina gën a tar mais buñ ci jëlee ay mesures teela taxaw ci dina am lu mu wàññi bu ñu traversé crise bi loolu nag ci taxawaayu président de la république moo ci la ci la dépendre mais hmm. aussi ci saytu bi nga xam ne assemblée nationale war na ko saytu ba xool ne exécutif bi mu ngi jaaral mbir yi ci yoon. Mhm. ñu jeexal ak élection locale yi candidat indépendant yu bari bokk nga ci dañoo jàpp ne kon euh, caution bi nga xam ne fixé nañu ko ci quinze millions ngir élection municipale départementale euh, dañ leen cee bëgg a seppi euh, ndax koppar yooyu lay ñaare parti politique lay gën a yomb pour ñu dajale ko que citoyen bi nga xam ni moom yéeneem la am ngir defar goxam est-ce que yow gis-gis boobu nga am ci caution bi. waaw mais xam nga caution bi euh, tey lu lu ñuy wax ñu ngi ñu ngi li tubaab bi di wax dañu ñu ngi capitaliser suñu démocratie mooy tey ku am xaalis mooy mën a bokk parce que caution jóge ci zero ba quinze millions dafa bëri bëri na trop ñu ne woon deux millions trois millions cinq millions sax ñu commencé naan mais jógee ci nit ñi ñu ngi doon laami laami ay dix millions mais yóbbu ko ba quinze millions loolu euh, vraiment euh, décision la boo xam ne tey metti na torop ci parti ci ay parti politique mais ci indépendant yi mais deuxièmement mooy euh, bu nekkee sepp moo leen tax a jóg dañoo waroon a liggéey ci texte yi nga xam ne mooy tax parti politique yi existe plus de sans parti politique ñu xool ndax ñu ngi ñu ngi jaarale yoon li nga xam ne texte yi moo leen tënk texte association bu ñu leen tax ñu nekk parti politique ñu nekk parti politique mais bu ñu ko defee tamit nii ah léegi indépendant yi dinañu dajale ah ñu ngi waxtaan suñu biir pour xool ak yeneen parti politique yi mu mën ne ñu dajale def suñu coalition ku nekk joxe dara nga ba nga motale quinze millions yi loolu du problème mais problème bi day dëgg dëgg dëgg mooy waratuñu parti politique yi ñëpp war nañu toog xoolaat parce que bu nekkee euh, tey laaj nañu quinze millions pour élection locale bu ñu demee législative mën nañu laaj trente bu ñu demee présidentielle mën nañu laaj soixante wala cent millions donc fii fu mu ne dafa mel ni démocratie bi la boo xam ne ku am xaalis mën nga bokk amul xaalis mën nga toog fële mm-hmm. fi mu koy yóbbu pour man amoon mon avis baaxul rafetul dañu war a xoolaat système bi xam na ne démocratie nee na loo xam ne c'est participatif la ñoom bañ fi egg tegu leen kenn teguleen leen yenn gàllankoor yi donc waruñu ko teg suñuy démocratie. yow personnellement ngay candidat ci mairie bu Golf Sud commune ba est-ce que caution bi am na xëy na lu mu indi ni njàqare ci yow ak ñi nga àndal naka dem ci boobu élection. waaw loolu laa wax xam nga fu mu ne nii yombul ci ñun yombul ci kenn. Mm. mais comme ñun aussi dañu dañu nar a dem ci coalition coalition bi nga xam ne dinañ ko ta dina taxaw ñu ngi ciy waxtaan. coalition boobu fu mu ne nii presque ñun ëpp nañu plus de quinze personnes. bokkul la coalition opposition bi. non coalition opposition bi ñoom ñu ngi waxtaani seen i waxtaan. Mm. mën na am ñun lu ñuy taxaw suba bu ñu taxawalee suñu coalition ba pare. Mm. mën nañu ubbi tamit bunt yi waxtaan parce que tëju ñoo ak kenn. mën nañu dem ci opposition bi waxtaan ak ñoom ñu def. ñu gën a yaatal coalition bi donc mais au moins par mesure de prudence. Mhm. ñi nga xam ne bokk nañu gis-gis ñuy ay indépendant ñuy ay waa société civile ñu ngi dajale. Mhm. pour dajale seen montant te laakaar ne loolu moom amul benn problème pour ñu matale ko. Mhm. mais li ñuy wax rek mooy lenn la xam ne tey euh, méngoowul ak suñu démocratie nu mu war a doxee. jërëjëf Cheikh Oumar Sy amoon nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey euh, yow yaa jiite euh, OCDEA nekkoon fi ci yi